du li nga wax kilifa nag ngay génnee ci bitti mais li am solo mooy rafetlu nañu mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko yaakaar ñu gëm nañu sax ni ça dans le bon sens c'est les bonnes mesures que su ñëpp taxawee juboo déggoo ànd yàlla mën nañu ci may ndam parce que looloo am solo parce que lii nga xam ni dafa dal àdduna bi yëpp ku nekk xam nga ni jombul kenn tànnul ku muy daal ku nekk lay daal donc fagarlu am taxawaayu mat am taxawaayu déggoo loolu rekk ñu ci mën jële moo tax félicité nañu gouvernement bi ci li mu def wax nañ ko suñu xalaat pour mu gën a efficace mais dañuy gërëm ak a sant mettitlu Sénégalais yi nga xam ni dal na leen félicité corps médical bi masawu diaspora bi nga xam ne ni mu koy vivre metti na engage engagé sénégalais yëpp ñu xam ni jombul kenn te kenn mun ci rëcc mais suñu àndee rek yàlla mën nañ ci defal sutur